وسليا يا إلهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحيم الهادي لمن يشاء min dawil inaadi suma salaatullahi wassalaamu ala rasuli xubbuhu salaamu wa ala alihi wa ashaabi ajmain wa man tabiahum bilhuda wal ixsaani ila yawmi ddin أصحابي وإخوتي ضيوفنا الكرام السادات الصحفيون والسيدات الصحفيات أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulilah rabbil alamin def nañ ko fi ay yoon yàlla di ñu baaxee lépp di rafet ñu delloo ci ko tey ñu dajeeti fii yàlla nañu fi daje déwén te déwén dàq ren ngi nuyu Seydi El Hadj Mansour Mbaye ngi nuyu mboolem journaliste yi fi daje moo xam ñi bind la moo xam ñi amee jumtuwaay yi la ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel di leen masawu di leen balu àq di leen balu àq euh, alhamdulilah la ñu fi dajale woon daaw rek moo ñu fi dajale baat ren te moo di lan moo di xew wu mag wi nga xam ni moo jublu si te benn xew gënu ko rëy gi gàmm di màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko Seydi El Hadji Malick wax rek ala azimu ليلة الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدوله ku yàlla màggal màggal ko ci xereñ la bokk ci am xel la bokk yàlla kenn mënu ko màggal ndax moom màgg na ba noppi kon li ngay man fekk li mu màggal nga màggal ko te moo màggal yonent bi wax ci moom lu bare bare bari ci alquran taggu ko innaka la ala xulqin adim wa rafaana laka dikraka nga dem ca inna anzalnaahu nga dem ca laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bilmuminina raufun rahim yooyu yëpp bi ay kaddu yu yàlla jëmali ci moom wax ko ko tagg ko nag ci li gën a màgg muy jikko ndax nit moom loo ko tagg tagg tagg te taggoo jikkoom rek tagg ba des na yàlla nangul na ko jikkoom bi rafet ni ko wa innaka la ala xuluqin azimin loo tax Cheikh El Hadji ci xelam mu rafet mu daw jëkk ci ñépp di ko màggal màggal gi mu ko jëkka màggal boobu moo Seydil Xaaji Rawaan la woon ci li ñu mag ñi nettali mais ñun fekke wuñu dundam mu ne ko dafa mel na sang bi de tey la guddeew mu ne ko waaw mu ne ko kon comme nun ñaar rekk fi nekk nañ ko màggale alquran te moo di naa tari xaaji kaw bi nga tari xaaji suuf bi ñu toog ca seen njàkk sa ñu amoon ca ndar màggal ko fa ci alquran jox ko yool ba hadiya mu commencé ko foofu bàyyeetul bàyyeetul ba ñëw tiwaawan gi nga xam ni en fin de compte mooy mujj wëram bi mu doon wër Sénégal di seet fan lay installé ndax ndar la jëkk nekk waaye ndar dafa xaw a teeroo ba mu ëpp mu dem njaarnde am fa sept taxawal fa daara di jàngale di fa bay ci wàllu li lislaam laaj moo di na nga sa bopp li ngay lekk yonent bi nee li gën ci li nit di lekk mooy li jóge ci ñakku jëm waaye mu demit ba mu yàgg mu gis ni njaarnde dafa kawe bu mu ëpp sori tubaab yi te boobu sëriñ si ku ci sori tubaab yi rek tappalekat yi booleel ak ñoom dañu amoon seen ay agent yu leen di duggal ci kër sëriñ si di jaxasi tubaab yi di leen neexal def nañ ko kër Serigne Touba ba moo ko indil perturbation bi mu am ci dundam yëpp tubaab yi jël ko yóbbu fa ñu ko yóbbu denc ko fa sept ak lu topp moom itam mu gis ni bu continuer Euh, nekkam foofu fii Serigne Touba mujj rek lay mujj te mooy du ñëw jur ko ndax commencé nañ di ko ndax yow looy def foofu dégg nañ ni yaa ngi jàngale dégg nañ nii yaa ngi fay indi lu wax wasifa te wasifa woo ñu bari laaj leen ñun ñoom xamuñu ko man ñu koy def ngeen waroon laaj ke kon moo wax leen lan la. mu dem ba mu yàgg mu ni fii daal su ma fi toogee lii mu rek mooy tubaab yi ñëw jël ma yàq sama liggéey yóbbu ma sànni ma kenn xam mën naa am ma dellu si mën naa am du ma dellu si kon nag naa dellu ndar waaye mu ñëw ndar it nag fekk ndar gën a taaxe nag taaxe ba mu ëpp mu xam ni fii du toogukaay mu commencé nag di xalaat fan lay war a dem fekk tubaab yi woo bi ñu ko mujj woon daal ba mu génne nag tonton ma gouverneur lépp dafa jaar yoon parce que wax na ni bi muy dugg ci bureau yonent bureau gouverneur mu ni yonent bi ak Cheikh Ahmed Tijani ñoo ko gunge ndax bëggul woon dem prison moo tax mu dem jëli leen neen kaay leen ngeen ngeen gunge ma ma dem ndax man li may wax ngeen orienté ma nee ñoo ko gunge mu dugg bureau gouverneur tontu ko la mu koy tontu ah mu nga dem léegi may ne lépp fu la neex nga installé fa bay fa jàngale fa mu génn mu woowaat ko mu ñëw mu ne ko waaw wax dangay ngay wax ban cercle boobu région cercle la ñuy wax pré préfecture ñuy wax subdivision mu ne ko foo bëgg installé ñu wutal la barab ak dëkkuwaay mu ne ko waaw su ma sañoon na ngeen bàyyi ma ma dem wax cosaan yi moo moom suuf yi yi nga xam ni seen maam yi ñoo fi nekkoon ay buur moomoon suuf yi ma dem ñaan leen ñu may na ndax damay bañ yéen moo wax leen ko ngeen nangu suuf jàmbur jox ma lu ca bay muy riba ñu ko kon nag demal foo ju koo juboo rek loolu danañ ko questionné ci la ñëw nag fii ci Jaksaaw ñaan famille kan ñu sant kan la ñu ñoo ko dogal mu dem Gosaas euh, ñaan Bersin Kumba Ndofféen jaare ko ci Samba Yomb Mbodj boobu moo fa nekk comme chef de canton Bersin may ko douze kilomètres mu ne ñaari daara yooyu doy mu ni daara bii ci del ma di fa kajoor ak njàmbur ak gànjoor ak waalo bëre ci gosaas ma di fa daje ak saalum ak bawal ak jolof muy ñaari daara yooyu la amoon jag nag mujjul dox ndax 1909 biñ ko nee Serigne Touba radiyallahu anhu toxu si ñu ne ak ah kon doy na fa dootu ko fa dootu ko bàyyi ko sas waaw mu ñëw nag Tiwaawan ñu ko fi indi woon waa Tiwaawan ñoo bëggoon ku leen firil quran ñu ni leen am na tukulóor bu nekkoon njaar ndede te jóge fa dellu ndar ga mu jóge woon su ngeen ko gisoon de te mu nangoo ñëw li ngeen bëgg ci al quran da ngeen am ñu yónnee ci moom délégation mu nangu ñëw mu ñëwee nag gis nii fii itam mën na nekk daara soriwul tubaab yi jegewu leen te tubaab noonu ngay def moom boo ko soree da ngay liw sedd la boo ko jegee mu lakk la safara la kon ngay nekk ci diggante bi waaw loolu moo tax bu mu ñëwee fi nag mu formé fi gàmmu jëf ko nag muy waaram ci bi di màggal goo xam ni tant que jàngoo di def lu yàlla santaanewul ca màggal ga kooku d'accord nañ ci am na sax ñuy bind di wax naan aadalaak euh, bida bidaa la bu dee bidaa yi bidaa la bidaa bu rafet la daje woo jullit yi waxtaan ak ñoom teral leen togg jox leen ñu lekk nga fàttali ni guddi gi ci gën ñëpp ci la gane àdduna ci biir loolu nañu fàttaliku ay jikkoom yi ñu may ñu di ko fàttaliku loolu dara nekku ci soo cere def lu ca bokkul la comme ni ko suñu maam daal di fee nga xam ni ndënd yeey ji ñuy dakk si ci buntu jàkk ja biir gàmmu ku ci ñaaw de ku ci rafetuma lay jur ci sama biir la ko man ci ànd boobu nag taxu ñuy wax eh, yàlla dogal nag mu joxoon ko importance lool di ci ñaax taalibe yëpp di ci ñaax muxaddam yëpp allahuma lu dul muxaddam yi sori woon ndax boobu dem dafa jafe amoo benn moyen de transport bu dul saxaar sinon da ngay dugg war fas wala war mbaam te loolu nag ñëpp attunu ko woon maa ngi dem benn tournée ci Sénégal oriental dem benn dëkk bu ñu Kolloor eh, ñu fekk fa benn muqaddamu Seydil Hadji Malick góor ga eh, ñu nuy ju ko ci këram mu di ma nettali nag euh, itinéraire bi mu def yëpp moom itam te la ma waxee ni ma 1909 doxee naa Kaffrine ba Ndar pour gàmmu ji ci Alxaaji Maalik te sa Kaffrine foofu nekk ak Ndar nga doxal sa tànk ba àgg Ndar pour fekkee rek gàmmu Alxaaji Maalik loolu taxoon mu may yenn muqaddam yi sori. ni leen may naa li yéen bu gàmmu jotee ngeen def ko ci seeni kër ndax dem waay yombul muqaddam yu mag yooyu bokk na ci ku deme na Seydil Aji Rawaan Ngom bokk na ci ku mel na Alxaaji Abdu Kan ca bokk na ca deme na Alxaaji Saliwu Loom ca Kaf ca Koungheul góor gi Babacar Kobal ca Sañtu Malem ak et tant ci ñi nga xam ne dañu sori woon ñu di fa daje ñoom tam ci seen ëtt seen i di ko def seen njaboot ak ña ña ña mu saf te mu jege leen